effectif on mène des enquêtes tey Pape bi nekkoon président assemblée nationale moom aussi nekk le plus grand absentéiste à l' assemblée nationale parce que il n' est jamais présent moo toogati ne c' est plus grave que ça donc bu fekkee sunu assemblée nationale lii la ñu mérité Bougazeli sur des questions de faux Ousmane Sonko cité nañ ko parce que dama bëgg rek bu ñuy wax aussi ñun li ñuy xaalis ci assemblée nationale tey moo doon question wu dund bi question wu luwaas bi mais assemblée nationale à scandale la servir. Hmm. nañ tas assemblée bi soppi ko daayira quoi ñii mérité wuñu naan dañ may représenter man dans cette assemblée euh, bu ma limee samay baaraam député yi taxaw dootu du bëreeti du bëreeti. passeport diplomatique mooy drapeau wu Sénégal kan moo koy joxe on doit pas chercher des boucs émissaires mais mener des enquêtes sérieuses topp ko ba ci njombal tax ba ba fan la mujj ba képp koo xam am nga ci responsable bu ñu demee ba passeport diplomatique bu Sénégal. Mhm. Union européenne daa jël ay restrictions am. dire que le mal très profond et pour une fois ñun sénégalais yi ñun ñoo attribué am ñun jox cër yooyu kon buñ ko yem fii dama bëgg ñu auditer de l'an 2000 ba fii. passeport diplomatique yi ci yenn condition lañ ko amee parce que passeport diplomatique aujourd'hui un état du bàyyi la cardinal muy dem de manière ordinaire yenn xalif yi parce que ki koy joxe moom moo am pouvoir boobu mais ci yenn condition la koy joxe mais su fekkee dañu politiser ba politiser suñuy consulat loolu lii la jur. alors justement gis nañ président la république bi mu falo euh, en 2012 euh, waxoon euh, ci passeport diplomatique yooyu parce que dafa waxoon ci nguuru ab Wade énormément de passeports diplomatiques oui, ont été oui, oui, ont et récupérés par la suite mu waxoon ne que dina ci xar tànkutu wéyam pour que tout ça cesse alors tey suñu demee ba yegg si fii di waxaat waxu passeport diplomatique lan leen nuru cher. ñaari jàngat Ablaye Wade bi mu ñëwee politique na. Uh-huh. joxe na ay passeport diplomatique yu bëri <laughs> Macky bi coupé ne loolu yëpp. après ne woon rupture. defaat na pire point. on se retrouve avec des passeports diplomatiques. Uh-huh. bu balaa balaa ngay ci sori comme dafa citer le cas de Bougazelli. moi d'abord je condamne en toute sincérité. oui. Euh, bi nga xam ne génnee nañ ko mu jóge ci moom. Uh-huh. sur des faits li ma si naqari rek mooy simple citoyen bu filmer wala simple citoyen bu génn su boobaa sax mais bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo yore suñu kaaraange. vidéo ñoom ñu nekk ak moom filmer ko que ça se retrouve dans la rue je condamne par contre par contre leneen li may condamner mooy l'impunité c'est-à-dire waa ji ñemewul ko ko quoi man dinaa ko waxal l'impunité dans quel sens liberté provisoire boo xam ne da ngay dem ñu mëq loolu suukar dugal la pavillon spécial Dantec keree la benn feebar génnee la nga yor sa làmmiñ di wax génnee la nga yor sa làmmiñ nga ne yow candidat nga yor sa làmmiñ loolu moo am Sénégal loolu moo métti sénégalais xam nga moo ñoqati sénégalais kaso kenn yéenewu ko kenn. mais ici ce qui est grave mooy ce sont les députés qui votent les lois. c'est-à-dire loi bi ñu fi waxoon. contre le terrorisme ce sont les députés qui ont légiféré. Mm-hmm. mais su fekkee c'est les les gens qui doivent légiférer ñoom ñoo violer loi imam di nga ma dimbali. parce que servir d'exemple mm-hmm. la waroon def tey le ma Sall dafa waroon jël responsabilité pour que lii servir d'exemple parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci doomam bi mu gën a sopp Fatima. Mm-hmm. yoon bi la ñu teg mu ne leen sama doom bu dee def na ko mhm. ñu jël loxoom ñu dagg ko commencé ko ci moom. d'accord pour servir d'exemple mais maintenant on parle de corruption. Oui. on parle de euh, lii moo fi am. c'est-à-dire boo amee foofar am foo féete. yor yenn posture dara lu ci fekk. ñaata sénégalais ñoo nekk ci kaso bi je peux te citer Vieux Diop. feebar na c'est un transitaire bi boole woon affaire wu affaire euh, drogue bi ñu saisiroon mhm. après téye nañ ko combien de sénégalais croupissent en prison avec des maladies te kenn joxu leen gis nga réew mi yii nag genre injustice bi la sa waay doon wax gis nga bu ñu nekkee ci dëkk mhm. pour respecter ay institution d'accord ku ku féete nguur boo defee loo warta def na la yat bi daal su boobaa boo yat bi dalee ku nekk ci ci ci beneen wàll bi kenn du wax dara mais fii si procédure assemblée yi jugement Khalifa Sall en en une année on a régler la chose deux temps trois mouvements bu fekkee ci nguur nga féete ñu wut ay. c'était rapide comme l'éclair euh, professeur dafa am également laata may ñëw ci ci imam euh, tout à l'heure dañ ko doon wax ne que dañuy condamné euh, par rapport ak boor bu ñu situé wu mais dañoo gis lii euh, dal assemblée nationale tey euh, ñu doon ci xaar peut-être député wu opposition ñu mën a alerte ñoom i tamit wax ci seen xalaat mais dañoo constaté benn mutisme par rapport à ces députés de l'opposition qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'eux aujourd'hui bon euh, xam nga bala maa ci question boobu. Mhm. xam nga tout à bi ngay interpeller DG monsieur Ndour yow da nga ko interpeller en tant que membre de l'APR mais je crois que il a répondu en tant que sénégalais et sincèrement l'objectivité c'est gène de l'esprit ji mhm. bi sàmm damay wax man damay wax rek man toogalu ma fi kenn kenn dégluwu ma mhm. rendre ma compte kenn parce que ni mu waxee bu fekkoon ministre bi noonu la waxee jëfee ko Macky Sall aussi waxee noonu jëfe ko injustice lu am li am dañuy kondaane ba pare député yi nañu gaaw lever cette immunité diplomatique ça c'est le Sénégalais qui doit parler comme ça mm. parce que député yi li ñu def en réalité li ñuy ñaawal deru Sénégal li ñu gàttal deru Sénégal mm. moo gën a bëri lu ñu gàkkal deru APR mm. l'APR c'est une étape de l'histoire qui va disparaître comme le parti socialiste a disparu entre guillemets ou le je veux dire du point de vue de la gestion du pouvoir dañuy dem même bu ñu fi defaa tourdi àll dañuy dem kon il est bien que parfois ñuy waxali yàlla parce que dara jaru ko fi beneen bi mooy gis nga man wax naa ko keroog numbelaan pour man c'est vrai que les députés dañu doon ay nit ñoo xam ne dañu assermenté nekk ci institution nekk des représentants du peuple donc li ñu def c'est gravissime lu metti la lu ñaaw la afin li ñu leen jiiñ mais ñoom ñi nga xam ne aussi dañu bokk ci waa yaanaamaar muy kilifa ak Simon pour man encore foofu c'est plus grave xam nga lu tax hmm. boo génnee Sénégal déjà député yooyu noonu man xaw ma seen tur liggéey ma tuuti ma ñëw rek xaw ma seen tur génnal ci mbedd mi ak sa équipe bu TV nga def micro trottoir nga ne leen le nom des députés yooyu am na ñoo xam ne xamuñ na loolu am na. mais Simon bi mu amee ak kilifa le monde entier était au courant. Hmm. parce que la représentation à l'Assemblée nationale elle est institutionnelle. c'est vrai mais elle n'est pas forcément plus importante que la représentation dans la conscience des citoyens. Hmm. léegi nag li nga xam ne nii am na ci mooy les députés de l'opposition man je ne peux une différence. entre une députée de l'opposition et une députée du pouvoir déjà loolu rek wax bi rek c'est une plaie de la démocratie évidemment loolu moo fi am. mais waaw justement loolu moo fi am c'est la moo fi am on peut moo tax ñu koy ñu koy dénoncer parce que aujourd'hui ki nga xam ne dafa nekk DG ak ki nga xam ne nii par exemple dafa mokk feneen toujours am na foo xam ne war nañ fa mun a bokk point de vue. parce que ce qui est en jeu est beaucoup plus grand que ces ces de partisan c'est-à-dire que à la limite yooyu. man su ma gisee nit bu partisan ba mu ëpp. li Serigne Cheikh doon wax la may fàttali. tout ce qui est excessif et insignifiant. tout ce qui est excessif est insignifiant loolu la Serigne Cheikh wax am na ñoo xam ne dañoo excessif parce que ils sont de l'opposition ils sont prêts à dire que Macky Sall n'existe même pas. am na ñoo xam ne ils sont excessifs député bu war a taxaw man ma Macky Sall loo ma wax loo wax ma woote ko. wala nous soob sommes député députés de l'opposition wala un avocat du diable qui est prêt à défendre toutes les causes ces yooyu dañ ko war a moytu pour man tous les députés doivent se lever et fair leur travail. Mm -hmm. c'est-à-dire mériter confiance bi nga xam ne dañ leen ko jox affaire Bougazelli nee na. Mhm. affaire Bougazelli du lenn lu dul kumba am ndey ak kumba amul ndey. Ah man suma vidéo bi nga gis ñu def ko ci ci ci ci ci muy muy muy circuler c'est vrai que je veux pas que les gens retiennent ça de moi parce que ce que je dis de l'essentiel pour moi n'est pas dans Bougazali pour moi Bougazali n'est pas un sujet de philosophie gisuma ci rien d'intéressant à discuter mais malheureusement presque ñoom loolu la jël way Sanoussi pour Bougazali nangam nangam non en réalité ku ba am ndey ak ku ma amul ndey la li nga wax la rek din nañ ko lu ne fàng wane ko ci vidéo muy saraxu ñu yóbbu ko juge yi def enquête tëj ko ñu bàyyi ko tey mu taxaw ci mbedd mi tu sais pourquoi parce que tout simplement il est un ami du président de la République Macky Sall point barre bu doon keneen du ko def. alors est-ce qu'on peut le dire ainsi euh, euh non non mënuñu ko waxee noonu parce que man simplement euh, ñu euh, lever immunité parlementaire. Mhm. c'est une étape. et d'ailleurs même il faudrait qu'on précise encore une fois que Bougazeli quand le problème là s'est posé. il a démissionné voilà. yaa ngi dégg. Mhm. maintenant mu dem ñu jox ko liberté provisoire une autre chose. boo xam ne juge bi wala procureur bi je pense moom moo am droit joxe ko loolu c'est la justice le procureur de mon point de vue il est indépendant moom mooy xalaat li muy xalaat di ko def loolu c'est pas un sujet politique pour man ça n'a rien à voir sànq nag dama dégg sama xarit Talla am lu mu wax je sais que le procureur est indépendant ah. maintenant euh, li ma bëgg a wax mooy euh, sànq yaa ngi wax euh, liberté provisoire mais nañu wax contrôle judiciaire xam nga dañu bëgg ñu objectif rek waaw tax am na ku ñu jàpp fi contrôle judiciaire. Ousmane Sonko lañ. Ousmane Sonko wala xaar rek moom lañ contrôle judiciaire. Mm. Mm. moom la mbiram nekk ci yoon bi. Mm. ni nga mën a taxawee wax ne kii mu ngi liberté provisoire di wax lu ko neex di def lu ko neex. mais de la même façon. la war a mën a condamner de même façon. ki nga xam ne il est plus ou moins contrôle judiciaire parce que contrôle judiciaire ce rien d'autre de mon point de vue c'est vrai que n'a ça n'a rien à voir avec plus ou moins ñoom ñoo a yem soo xoolee ba xool bien vrai que sur le plan juridique régime yi la. waaw mais pourquoi tout le man fenn fu ma d'accordé ak Sanoussi professeur. ak mm. fenn fu ma d'accord ak moom fu ma d'accordé ak moom mooy. Mm-hmm. sur le fond. Mm-hmm. j'ai eu la dignité et la responsabilité de dire que lii mooy yoon je pense que yéen ndax d'accord ngeen ak man nangu ngeen ma ak loolu mm. mais man aussi de la même façon mm. damay condamner ci coow li fi am li nga xam ne mooy enseignement bi ñu ci war a tere. Mm-hmm. mooy posture ñeneen ñi xam nga ku ma ndey am ndey ak ku ma amul ndey soo leen ko condamné wax ne ñooy waa APR pour ñoom am ndey ku ma amul ndey la mais ku ma am ndey ak ku ma amul ndey dem na ba ci prise de position wu personnes yi nga xam ne dañu ne ñoom dañoo objectif loolu lay condamné loolu lay condamné non man foofu laa yem foofu laa yem ci débat bi li may def mooy quelqu'un qui la légitimité et la dignité de dire waaye contrôle judiciaire euh, euh, euh, liberté provisoire lañ ko def muy muy muy muy muy mu muy nekk di wax ay émission di wax ko neex kooku su fekkee dafa bëgg objectif tala sëñ tala da ci yokk ne de la même façon maa ngi condamné kuy def contrôle judiciaire. léegi alors on est pas là non d'accord je ah, ci d'accord cest à je suis dans le parallélisme. pourquoi ah, non non ah, parce que non xam nga. xaaral xaaral maa yokkuloo baa ma yokkuloo. la. moi je suis dans le parallélisme. a j'ai le devoir d'être dans le parallélisme. parce que dañuy wax nit ñi dañuy déglu. Mm-hmm. fond débat bi xam naa ko mënuma ma si wax lenn loolu su fekkee am na maa ngi koy condamné. Mm-hmm. Mm-hmm. su fekkee ne yoon dafa war a def liggéeyam maa ngi wax yoon mu def ko liggéeyam nu mu gën a gaawee pour ñu dépasser débat bi. léegi man am naa léegi nag su loolu weesoo su loolu weesoo mm-hmm. dinaa si wax na nag waaye. am na luy parasiter le débat politique. am na luy parasiter le débat public. ku ma am ndey ak ku ma amul ndey boobu ngeen di condamné ñi nga xam ne yéen koy condamné yéen a si jiitu waaw léegi ndax léegi Sénégal bi lu am mooy. diw pouvoir la bokk lu mu def. wax ko koy da nga koy wax man dama xam nga xam nga xam nga benn jour. loolu da nga koy wax ñi nga xam ni. ñoom ñoo am boobu. mais man li ma wax li ma wax. li ma wax. Mm-hmm. bi ma lay posé question ne la ndax gëm nga ni le procureur est indépendant. maa ngi koy nuyu sëñ Bassirou Gueye waaw xaar waa léegi man ma wax la. bu gën a dee. of nag jël na ay dossier jox le procureur yëngatuwul ñu remarqué. bu nit bokkul ci nguur. waaw sa dossier rakin ak ñu rek. waaw kaay ma tontu baal non non alors oui rapidement après ñu dem baal ma baal ma baal ma baal ma ñëw lu tax ma ne ku ma am ndey ku ma amul ndey. xaaral dama am 557 collectivités territoriales yow sa bas si nga bokk waaw. léegi 557. waaw bi ñu bëggee régler affaire Khalifa Sall. waaw IGE rapport yu mu génnee. lan moo si nekkoon. d'accord est-ce que dafa waxoon ne bàyyi ko mu tontu ñu dem ci imam bàyyi ko mu tontu am nay na ci réew mi. waaw léegi te commencé wul ci Macky Sall ca Senghor ba ca. non non maa ngi ñëw imam day tontu rek ma ñëw ci yow imam mais liberté provisoire bi moom en 30 secondes déjà. en doon naa wax ne effectivement am na problème su fekkoon na ci yokkoon en même temps au mois de février ou bien au mois de mars. on est au mois de septembre. ba léegi jugé guñ ko. c'est la responsabilité de qui c'est pour dire c'est la grande question c'est la grande question c'est la responsabilité de qui de pourquoi on est obligé tout le temps de ramener ce débat encore sur la table pour parler de ce fait mais c'est pour dire c'est pour dire non non moom lay tontu kon jëlu responsabilité mais cher cher bàyyi ma tontu leen c'est pour dire que mm. moi je fais partie des Sénégalais qui pensent mm. qu'il y a le temps de la justice et le temps de la politique. lépp lu ñu fi gérer en temps réel. lépp lu fi différé pour man temps wu justice la. point oui de alors waaw imam imam depuis sànq mu ngi fi s'il vous plaît s'il vous plaît. Ah, le temps un temps politique. très bien voilà. oui. maanaam <laughs> maanaam temps mooy li gën a cher ci dundu doomu adama dëgg la te comme dañ fay daje Sénégal yi di ñu déglu. Mhm. man maa ngi ñaan kenn ku ne ba sa temps jeexee nga bàyyi ki war a wax wax. <laughs> important. waaw man dinaa jël sama temps bañ. damay bañ def ko débat wu ruube parce que li ñuy waxtaanee nii dafa sérieux affaire république la ñuy waxtaanee. avenir u Sénégal la ñuy waxtaanee kon pour man war naa sérieux ba ku nekk. ndax ñëpp bëgg wax mais ku ne bu sa temps jeexee nga bàyyi keneen mu développé c'est important maanaam nen Aïcha man li may wax. waaw <laughs> d'accord non damay bañ mu ruube rek. non non et en plus imam